kon nag mbokk yi hôtel la Salem bi ñu wax ah ma naan wedd gis bokk ci li ma gis fii dama leen naan gisuma ko fenn ah, ndax nag macha allah Horatio euh, lii ci li nga xam ne rek mooy ay yu confortable lii ci li nga xam ne rek mooy piscine boo xam ne macha allah boo fi duggee doo bëgg génn restauration bi nag waxi noppi euh, dama naan chef bi fi nekk moom macha allah li muy togg toggaloog la Horatio kon nag la Salem Lac fii moom ñàkk fee fréquenté wóorul ndax gis ngeen li ñu leen expliqué lépp ne moo fi nekk kon képp koo xam ne da nga bëgg li nga xam ne rek mooy sàcc sa bopp en famille Euh, nga nek nak individuel nga nek li nga xamné en couple lepp lo bëgg rek bo ñëwé fi ñu servir la li ma ci gëna neex nak moy sécurité bi nga xamné ne macha allah boo fiy dugg léppay leer ak lepp li nga xamné ne rek euh, macha allah moo fi nekk ci yu ba kon Horatio liñ naan da ngay loupé loupé loupé mais li nga loupé tay xamna naa c'est vrai Sonia je dirais que hôtel chez Salim c'est un hôtel parmi tant d'autres un hôtel très accueillant macha pour les touristes euh, les touristes euh, ceux qui viennent de l'extérieur pour venir au Sénégal. Faites votre choix, mais, mais faites un bon choix. Le bon choix, c'est chez Salim. Chez Salim, vous avez la possibilité d'avoir plus de 40 chambres, deux piscines, piscines extrêmement propres, machallah, avec une sécurité garantie. La sécurité, j'en passe. La sécurité, il y a une sécurité à l'entrée, une sécurité aux sous-entrées, une sécurité à l'entrée, une sécurité à l'entrée à l'entrée, une sécurité à l'intérieur, une sécurité à l'intérieur de l'intérieur, et une sécurité à l'extérieur de l'extérieur, et une sécurité à l'extérieur. Donc la sécurité, elle est parfaite. Bienvenue à l'hôtel Chez Salim. Bon, comme nous le savez, l'hôtel Chez Salim est à 35 km de Dakar. donc euh, pour nous chez Salim il y trop donc autoroute à péage bi léegi soo qui est en moins de 35 minutes y la donc il y a la na donc so y auto bu auto oto ba muntu yor mën nga ñëw ba biir Lac Rose donc yexi comme ni nga ko gisee Cheikh Salim parking bi yaatu na presque plus de 50 véhicules wala 60 véhicules qui nañ fi garé sans sans problème sécurité bi mat na. Les prestation yi ñuy offrir bari na hébergements, def hébergement dañuy def restauration am excursion yi donc xool côté hébergement bi am nañ 48 chambres 48 chambres am deux deux types de chambres am nañ chambre supérieure chambre yo xam qui vraiment bon, machallah am chambre yo xam chambre standard la ah donc lu ngeen bëgg rek mën ngeen am ay chambre single ay chambre double ay chambre triple pour ñi nga xam dañ bëgg voilà familiale yi mooy ñi nga xamante ne dañ bëgg a ñëw en famille te bëgg ñu séparer ak seen doom yi am na ay chambre communicante hmm, parents yi nekk si néeg bi xale yi nekk si néeg bi mu am benn porte bu leen séparer ah chambre yi ci biir ah lépp a ngi ci c'est climatisé ah y a des douches toilettes ah eau chaude si biir si biir douche yi donc, il y a, y a, le Wi-Fi. Côté restauration, comme nous le bon, on a un bon chef qui est là. Donc, chef, vraiment, il est excellent. Il a fait plat une heure. Donc, il y a une variété. Et puis, nous, vraiment, nous apprécié.

cherul gars yi dañuy foog ne affaire dafa cher mais cherul vraiment suñu jëlee suñu woté si suñu numéro wala ñu dugg suñu site internet bi di dinañ gis tarif yi dinañ gis lépp xam fi fii vraiment prix c'est très abordable té fii am nañ ay excursion pour nit ñi su ñëwee fi aussi baña a xam nga baña a am euh, activité yu bari yo xamante ñu mën nañ ko def fi donc le site domaine ni quad quad moy moto bobu am cadre nga xam amul vitesse amul dara da ngay accélérer rek pour dem ci plage bi dem ci dune yi xam nga wóor touti Lac environnement Lac bi mun nga ko defee aussi dromadaire moy chameau yi donc da ngay yegg doxantu tuuti dem si dune bi dem si plage bi ñëwaat su la neexee aussi nga luye 4 4 yi nekk fii pour def genre Paris Dakar bu ndaw wër dune yi def plage ñëwaat ñu bëgg a doxantu si lac bi aussi am na ay barque yoo xamante ni promenade sur le lac en famille en couple donc loolu yëpp dañ koy def. numéro téléphone yi boo am nañ téléphone fixe bi c' est le 33 836 24 66 kooku mooy fixe bi sinon portable bi 77 632 61 85 boo am nañ aussi euh, adresse email am nañ site kii yooyu yëpp mu ngi ci. Euh,